sëriñ Abdou Lahad Bousso président commission sociale jiite itam relation extérieure ci daayira bi di Muxaddamatul Xidma yore liggéeyu jumaa yu Touba di amal ndog yu am solo ci weeru koor wu sali wi itam di taxawu armée lu bàq ya mu ngi wéyal tournéem fii ci Amérique latine ginnaaw bi mu jógee Brésil nag ñëw na fii ci réewu Argentine ngir jàllale message su Muxaddamatul Xidma xamal mbokk taalibe yi tolluwaayu liggéey bi ak jublu bi daayira Lignes dalal nañu ko ci anam yu mucc ayib ci ginnaaw seen kàddu yi nuyoo safonte Abdou Lahad Bousso daal dina yëkkati kàddu yi yi nga xam ni moom moo ko fi indi wax leen tolluwaayu liggéey bi ak jëmuwaayu liggéeyu Moukhaddamatoul Khidma Cheikh Abdou Lahad Bousso ci micro Touba Argentine TV. amiin bëgg noonu ñu leen ko waxee nag ñu ñëw fi ci daayira Moukhaddamatoul Khidma daayira Moukhaddamatoul Khidma boobu. ñu leeral leen ni d'ailleurs mi ngi sos woon ci weeru mars 1994 mm-hmm. kon xam na ne ku ne xam ne fi doom mi ngi fi ñaar fukki atam ak juróom mm-hmm. Serigne Saliou moo ko tudd woon moo ci ndigalam la sosoo woon tudde ko ma daa mm-hmm. daan ne ngir liggéeyal Serigne Touba ci jumaa ji yàlla dogal ñu defoon woon boobu Serigne Afia bu sa imaam mii nga xam ne mooy imaam ji mu moom la ànd àndaloo mu doon njiit li Serigne Saliou wax ko loolu ba nag Serigne Saliou daal di wax ne kat na ngeen daal di tàmbale defar sàppe yi tàqali góor ñi jigéen ñi keroog ba ñuy def wax tàqali góor ñi ba dem ba si mut laa yëg ko dañoo woo ñu moo wax nañ koy defee da ngeen wut ay rudo def ko ni bu waxtu julli a gisee a ngay julli si loolee ko defee siñ saay def wax ñu la ñu joxe woon ndigal daayira bi taxawu wolof woo xam ne waa daayira bi ñoo koy taxawu ba waxtaanu wolof woowu ñuy am nit ñi mën a xam seen diine mm-hmm. loolu lépp nag boo ameeti nag loolu lépp lu di set wala xet bu neex wala lépp luy matériel bu yàqu benn bu ci nekk sëñ bi digaloon nañu ñu ñu ci sonn soppi ko soppiku lépp luñ ci mën ñu def ko ci loolee waral tam ñu ñu doxee noonu ci lépp loo xam ne ay taxawaay la ba yàgg mu jekk-jekk morgue bee noppi waaye waa Italie liggéeyoon ko bañ bañ bañ bañ ko liggéeyee sëñ Saalu daan ñu woo daan ñu dama leen ko bëgg a dénk ni ngeen ma taxawala jumaa ji ngeen taxawal ko noonu ndax yëg naa ne wax nañ ma ne léeg ñu denc fi koo xam ne kiñ ñu fi denc duñu xam kan la te damaa bëgg ñu fi ñu xam ko boobee lañ tàmbali ba fii may wax ak yow boo boo demoon boobaak léegi képp ku faatu boo fa demee dañu wax ne diw faatu na moo xam diwa ko fi andi mi ngi faatoo barab sàngam daa faatu nii wala dañ ko rey wala def nangam loolu lépp nga xam ne fekkante ne dafa doon koo xam dafa am ay jafe-jafe gaañu ci yaramam sax duñ ko dongoo dañ dañ koy bàyyi xel bam bam leer nañ loolu lépp seelu ñu ci joxoon ndigal ñu di ko ci taxawu taxawu boo xam ne ci lañ ko doon taxaw ba te loolu ba yàlla dogalee ñu dem tamit Cheikh Sidi Muxtaar ubbi margo bee tëj euh, ubbi ubbi baaxa doxaan ñu ndigal tamit ni dama koy teg seen loxo ngeen di ko saytu loolu lépp nag mm, ci loxoy daayira ma Khidma la nekk ñu koy taxaw damay wax ne nag nekk gi ma ci nekk taxu ma di ko wax waaye jumaay Sëriñ Tuubaa mooy fi ñëpp bokk mm-hmm. benn taalibe bu nangu ku la ci ëppale amul ku fi jóge tamit baaxee nga bëgg a kon nag ñaar yi daayira bii di daayira Moukhaddamatoul Khidma da daayira ñëpp moo war a jéegu yi ñu jóg ba yegg si fii fas yéene lépp lu ñu fay def ñu bokk ak lu waaye mën a sori sori ñu xam ne sori gi jege am na jege gi sori am na yéen ñi nekk fii nag tàmbali woon ngeen ko at yii sori gi di ngeen sori sori sori jëmm yee sori waaye xol yi soriwul Sëriñ Tuubaa ndax seen jëfe ngay ñëw jëf yooyu nag moo tax waral jéego yi ñu ñëw fii ba ci ñu ñëw fii ba ci Argentine ngir soññi leen ngeen gën a góorgóorluwaat ci daayira bi ngir daayira ku bari sarse la ku bari ay ay war-war la ni ko niñ ko waxee léegi ci ci daayira yi bépp daayira boo xamante ne yaa ngi ci àdduna bi boo tankutoo ba gis ne bëgg nga liggéey ci jumaa ji danañ seet la gën a jàmp ñun la lii moo gën a jàmp defal ko taxawaay ci daayira bi noonu ñu ko waxee tëpp wat euh, machine boobu fóot tëpp yi noonu lañ ko nasa woon ba wutloo ko ab daayira ci Italie mm-hmm. noonu ñu ko waxoon morgo mbir morgo boobee denc euh, dencukaay yi dafa dafa dafa mëtutoon fa lañ def daayira France ñu def ko parasol yooyu ngeen gis noonu lañ jokkoo ak waa Siin bañ def ko yooyu lañ mën nañ leen ko lim réew réew sàngam ba ci waa Espagne oto boobu ñu yóbbu personnel jumaa ji waa Espagne lañ ci jokkal bañ wut ko loolu nag mën nga koo jàpp benn par benn ba ci ba Italie fi bu yàggut wut nañu ay ay caméra ba ci Amérique wut nañu ay caméra film ci site internet bi nekk ci jumaa ji yooyu la waxtu nekk la gën a jàmp ko loolu bu daayira jugaati ñu wuta ko loolu ndax mbirum suñu tubaab wutalaat boo xam ne entretien la entretien du taxaw bokkut ab sànce boo yor nga xam ne da nga bu jeexee jeex na lu dul taxaw nag da ngeen di fas yéene ba góorgóor lëkkale ko daayira Sëriñ Tuubaa yi ba fépp fu daayira sëñ tubaa nekk nga xam ne la lay war ci ku fi nekk sëñ tubaa dan la war ci sa loxo di fexe bu nekk mu dem ci luy luy luy jagal luy fay sax jumaa ji te xam ne kat jumaa yi sëñ tubaa jii ñun ñii nga xamante ne ñooy di doomu aadama ñun lay suñu xaas sëñ tubaa ba ko suñu borom mayee waxoon na ko ay ñu ne laajoon nañ ko ngir def ko nu mel na neen sëñ tubaa moo sàkku woon ci ñu bàyyi ko daa mu njaboot tim yéene leen dara yomal xel daat ci wax waxam juree joojee ba waxoon daal ku ci feeñ feeñ ba faw ku ci ne budutoo feeñ feeñ gi rek ba fii may wax yow ku bëgg da ca feeñ képp koo xam ne bëgg ngaa bokk ci daayira bi carte membre yaa ngi fi képp koo xam ne bëgg ngaa barkeel tam carte barkeel yaa ngi fi lépp loo xamante ne am na ci buñ ko defee ba rampale ko lépp danañ ko danañ ko jël danañ ko yóbbu ci jumaa

ñu ne mu yàlla na ñu ñu yor boo xam ne nag day daayira boo xam ne mooy xolu murid yëpp raw na xolu jullit yi moo tax nag fañ fa nekk dañu fas yéene yaatal ko ku ñëw ku nekk sa wàll nga ca yaatal ko nag moo waral andi lii lépp kenn ku ci nekk daal du daayira kër du daayira Sëriñ Tuubaa la boo xam ne mooy xol bu murid yëpp képp koo xam ne daayira boo mën di bokk tamit war nga caa bokk waaye daayira bi moom a mel kon nag ñu ngi leen bu baax sant bu baax nag sëñ Mor sa ah, sëñ Mor Sall jëwrin moom mi nga xam ne tamit taxawaayam rafet na sëñ Mor Talla Sall jëwrin mi nga xam ne taxawaay rafet na ba coordination ci ñëw ci Argentine yëpp mu def ci ay taxawaay yu rafet rafet kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal yàlla dogal ñu ànd ñëw fi ànd fekk Serigne Khadim Gueye mu dafee jàng euh, xasir ba ko démb ak ñi a sekk euh, euh, ba ba tey waxtu ñu ngi ñu lu yaatal liggéey bi ci liggéey daayira Moukhaddamatoul Khidma ñu ngi ci bañ nekk Sénégal tamit ñu ngi doon def lu jëm ci jumaa ji moom li mu fi bàyyi woon la loolee nag jëmut foofu bari fi daayira Moukhaddamatoul Khidma képp kilifa kilifa diine gu jóge Touba ñëw mhm. bu ñëwee kër Sëriñ Touba gi ci Daaru Marnaan ak kër Sëriñ Touba ga fee mhm. ñoom ñooñu la sëñ la alaaj baara ba tey mhm. ñu ñëw daayira ba leen dalal ñoo leen toppatoo ba màggal gi jeex ñibbiwaat loolu mooy liggéey daayira Moukhaddamatoul Khidma ci tënk wasalaamaaleykum wa wa barakaatuh ñi ngi sant mbokk mboolem daayira bi nga xam ne fi lañ ci Argentine ci mboolem jëwri ñu yëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm wasalaamaaleykum Amin.